ñun li ñu jàpp xam nga CNG bu fekkee dafa war a ubbi saison bi dañuy ki tey moo doon suñu réunion bi nga xam ne mooy dernière réunion pour préparer journée bi du 20 mais le CNG a pris toutes les dispositions pour wax dëgg yàlla course bi ñu ubbi ko le 20 pour arranger propriétaires yi ak surtout borom fas yi nga xam ne ñoo gérer seen écurie ak entraîneurs yi jockey yi nga xam ne si lii la ñu yaakaar ñun CNG nañ disposition par rapport à ce que nous avons de la LONASE pour essayer d'ouvrir zombies le plus tôt possible pour les accompagner. Tant que les autorités, nous devons parler avec Nous devons faire tout nous que nous pouvons parce que nous avons 5 secondes, nous avons. Mais comme le problème est la le monde, nous devons comme par rapport à nos confrères qui sont en France, nous avons des courses comme nous, nous avons des mais huis clos la ñuy def moo tax ñun jël décision dawal à huis clos hippodrome ba benn amateur du fa donc dañ koy hermétiquement borom fas yi ñëw indi seen fas dugg ci biir compétir bu paré paree CNG bi fay leen li nga xamné mom lañ am droit test bi nak mom Covid bi mom c'est obligatoire parce que ñun jël nañ ay suñu disposition lepp luy matériel jëm ci af Covid 19 bi CNG jël na nako ba paré boo ku ñëw ci hippodrome ba non seulement do dugg mais ñi nga xamné ñu indi fas yi war a dugg muy entraîneur jockey yi bu neexee yàlla balaa kenn dugg dañ la testé euh, contrôler la après lu ko war a la mesure barrière nga xamné mom le gouvernement bi tek tabal ci lolou dañ ko jaarale ci yoon